abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. Sénégal. Wañan Samba Dang le suivant. asalaamaaleykum wa monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu ak sa collaborateur yi nga àndal yépp waaye tamit ñu ngi nuyu suñu collègue honorable yi fi teew du nuyu représentant presse bi le ministre. entreprise sénégalaise yi nga xamante ne si dañuy yëngu ci BTP ñi ngi sàkku à que marché yi nga xamante ne si ne c'est des milliards ngeen di ko jox les aux entreprises étrangères ñi ngi ñaan ngeen di leen ko jox parce que entreprise yooyu dañuy recruter doomu sénégalais di leen exploité avec des prix misérables te entreprise yooyu te marché yooyu ñoom bu ko gañee dinañ ci mën a am ay matériaux dinañ mën a aussi participer à l'essor du pays beneen bi tamit mooy da ngay gis ay jeunes entrepreneurs yoo xamante ne si dañuy góor góorlu ba créer seen GIE wala ñu créer seen société à responsabilité limitée mais dañuy am ay problème pour soumissionner wu ci marché yooyu pour mën a gagner kon ñi ngi leen di ñaan appel d'offre yi ngeen di bañ a def gré à gré ngeen di ko teg ci yoon bu ko defee ñoom tamit ñu mën ciy jot beneen bi tamit mooy jeune entrepreneur yi da ngay gis euh, entrepreneur boo xamante ne si ne day gañe marché dem ci banque yi leb recruter euh, ay sénégalais mais bu paree day topp ci ginnaaw état bi di courir euh, nuit et jour te du mën a jot salaire am pour mën a fay ñi mu recruter day dem a dem sax ba day am ak problème banque yi beneen bi aussi mooy département Kébémer ñun dañu manqué ay infrastructure commune boo ci jël dix-neuf commune yëpp muy Darou Moussi di Bandeñ di Sagata di Loro ñëpp ñoo bokk lu ñu jooy muy problème mu infrastructure ñun waa Darou Moussi nag da ngeen ñoo digoon ay ay route secondaire waa Ageroute ñëw nañ mesure def yëpp mais jusqu'à présent gisaguñu dara euh, axe bi nga xamante ne si na tamit moom moo jaar Touba ak Darou Moussi dañu soxla ñu transformer ko euh, route à double voie parce que à chaque fois day am ay accident yu fay am kon ñu ngi leen di interpeller ñu ngi leen di interpeller ci ci loolu euh, yoon bi nga xamante ne si na tamit moo jógee saam yebal euh, jaar keneen job ñëw ba daaru musu boobu tamit vraiment dafa dem a dem ba dégradé wu kon foofu tamit ñu ngi leen fi sollicité euh, yoonu caaro yëmbal noor bi tamit vraiment foofu tamit laaj na ñu ñu reconstruire ko yoon bi nga xamante ne si na aussi moom moo juge kunun jaar ci marine française bi boobu tamit vraiment depuis temps Senghor la woon soxla na ñu defaraat ko ginnaaw loolu nag monsieur le ministre yow la yow yaa chargé affaire euh, euh, yow yaa yore wàllu désenclavement waa cité kër góor gi vraiment population bi il souffre mbedd yépp ñu ngi ko barricadé kenn mënul dem kenn mënul dikk vous l'avez transformé en en une zone très inaccessible te dara waralu ko dara waralu loolu du dul président Ousmane Sonko mi nga xamante ne si ne askan wi ñoom ñoo ko bëggal seen bopp yaakaar ko am ci moom yaakaar tax foofu yépp ngeen privé leen seen ay droit ak seen ay liberté kon ñu ngi leen di ñaan ngeen xoolaat seen taxawaay président Macky Sall nag ñu ngi koy xamal ne ko askan wi ñoo ko fal te instant askan wi ci boppam ñoom ñoo ko suur fii ci Sénégal di jigéen góor mag ak ndaw ñëpp doyal nañ ci moom ñu ngi koy xamal nag ne ko troisième candidature du ko fi amee nous disons ñett au troisième mandat ñun xale yi 2000 euh, lii ñuy wax nii naan saccage yi nangam nangam lii 2012 dañ ko xeexal ba ay ay bakkan wadd pour mu toog kon tey ji dafa fàtte li ko faloon moo tax askan wi toog jug fipp ne ko dig ñu abal te incha allah rabbi dañuy abal journal Le Monde nag ak TV euh, France 24 gis nañ ñu publier ay image te ñoom dañ ne waa waa APR ñoom ñooy responsable saccage kon ñu ngi leen di xaar yéen ngeen tontu ci loolu beneen bi aussi li ma koy tëje mooy président Macky Sall constitution du euh, du Sénégal article 27 moom moo ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs kon moom du bokk te wur a bokk président Macky Sall du bokk ndax wur a bokk président Ousmane Sonko day bokk président yi fi jaar yëpp muy président Abdou Diouf di président Abdou Abdoulaye Wade ku ci nekk danga nga xàllal euh, sa sa ay nawle yoon ñu mën a candidaté ba toog moom tey jii bu ko président ab war da defoon nii kon tey du candidaté bay nekk président de la république kon na bàyyi candidat yi ñu bëre na yaatal géew bi ñu bëre képp koo xamante ne si ne suñu borom soob na yow nga yor réew mi askan wi ànd ci peuple bi jóg taxaw na yow la ñu xam ne yow la je vous merci chers collègues. Samba Dang vous avez la parole. Cheikh Seck le Ali Mané le suivant.